Wai di waykat yi nag waykat yi ñu ngi len di xaar bes bu senegal soppé ko waykat bu fi ñëk jog di way ay waxi patriote dina en arrière waykat bu fi ñëk way rek sa concert la xaar concert ci concert gis nga rew mi dotul doon rew karka ma kata katamaña ma ñu wakal nako am joxe yëpp duuta yee fii kenn dotu fi duuta ye rew mi so ñi bay dem bay ñi nap ji dem naj napi, ji tabah tabax tabax waye rew mi ay taas moo fi dul amati dinañ dëgg parce que réew mi dafa war a dem dafa war a dem dañu toll ci dem dëkk yëpp a dem wax nañu bay bëgg a dee chaque jour musiba di leen dal saay bu leen musiba dalee sunu gàcce la duñ mën a toog fen duñ mën a dem fen ay taasu lañ dul seetal ni ngeen di doxaleeg ñun nag gis nañ ko mbër yi ni ngeen di doxaleeg ñun gis nañ ko mais ne vous inquiétez pas c'est des communicateurs traditionnels ñoo fi nekkoon góox ñu wëndeel ñu xirtal ñu ci yéen amuñu dara lepp ñu jox leen bu ngeen wootee la stade bu la stade bay daanu ñoy damu bu ngeen wootee la stade bu jamante paka yi am ñun la bu ngeen accident yi bu am ñun la vous êtes bien escorté ba kenn du leen la seen xojom kenn du ko laal bu ngeen paré bay ñi ci kaw tribune ñu xex ba tass tey rew mi soxla ñuy wax waxu dem pare do a fo ngeen ne da ngeen bëgg continuer di fo te li pousse rew mi pour mu dem auto bi da ngeen ci pousse da ngeen di tok rek xaar Yen foo moo leen intéressé ak ànd ak doomaraam yi nga xam ne ñoo dëj réew mi loolu gàcce la sas ci yéen te yéen a yax bu rëy bi yéen yàlla tànn leen xool fayu leen ko dërëm mu jox leen yax bu rëy ngeen wàcc seen askan total leen toog seen kaw waykat yi neex baat lool yàlla jox leen ay kàddu seen baat mën a yegg fu ne ñu ne seenu askan buy dee duñ ci wax moment boobu dikkan jaafaa kulli muy fu di rey boppam moment boobu moment boobu Salif Keita mi ngi ray bopam yeen way kat ngeen ne neex ngeen bat waye borom alal yi ngeen amal affaire sen askan bu ci fukki lire ak ñet ak juroom ñaar deewé yeen jomb ngeen ko way bu fukki xalé ak ñent ñu ray leen ci rew mi yeen jomb ngeen ko way parce que ci loolen di dox ci alalu direct ngeen di tuddu c'est du jamais vu c'est du jamais vu war ngeen ñu waye ni ngeen ñu woré ndem yalla mo ñu indi ci kaw suuf ñun ak yeen yalla na leen yalla war ndax dañ ñu boole woon ak yéen ñenn ci yéen neex baat lool dañ ñu boole woon ak yéen ñenn ci yéen am yaram lool pour taxaw ñu ñu lank ne duñu taxaw waaye li may wax rek yàlla du tëj bunt tëj fenêtre wàcce ridu parax ndol day am parax ndol day am te dañ ci jaar dañ ci génn réew mi dina dox kuy am gàcce gàcce gi bu ngeen ko bañee nangu dinañ leen ko solal par force parce que on est là avec vous te on va pas se taire déedéet duñ noppi de ñu leen di topp nag benn par benn yéen ñëpp lii dafa ruslu